ɓandu milana sipoɗen to ɓanduɗo milana tan sipo jondede ndeysan mais kene ka jaay o quartier ngulan ndeysan so ɓanduɗo milan tan sipo jon ken sina fak mana jamagen mila ken sina fak jamagen ndeysan champion mbiyalan finalu maana fat jama gen den fo Alias Diène ana jëna ma gërëm <laughs> El Hadj Ndiou Gërëg. macha a vraiment astronomie nami o xene koy faak bo xaye hmm. o tole ten mois de temps ngara kon koy maxey sante'an a paax mbin yalan koy hmm. fa roog rek xaƴ tuma den parce que o ndeɓi refuma mi mi falaku maafrel ma hmm. mais vraiment ga ndeegwaam oyo sampiyo ka ndefna ma fop ndefna no njom maxey ñaanana den jam no cer <laughs> xa gara xe mi Mame Seye Mbasa Thiaɗe Marcel Ndong Mbaye Mbour minaseeru minaseeru kii jam ceeri jam ceeri Modou sono na si man trop si sama yoon bi ñoom Abdou Faye waaw ah, ak euh, sama benn boy bu ñuy wax maas mhm. te mu dëkk pont mhm. sono na si man trop macha allah euh, kon nag am na solo Moustapha kon ñu gàttal ko rek ba beneen yoon incha <laughs> allah lan ngay wax Sidi Mbir Yalane TV Ndioli TV Général TV Général TV comme ci kaw ci kanam rek mhm. yàlla daal yàlla la fa laa leen bàyyi ndax sonu si affaire bi. jaajëf noonu continuation. ok fu nga continuer bu a